salaamaaleykum gars yi nuyu naa leen di leen ak jàmm ci Sen Sport 221 dañu koy dore ak Chelsea football club bi nga xam ne tey jii dafa daal di gagné li nga xamante ne moo aju ci première édition bi ñuy amal ci lii di euh, première ligue soma série première ligue soma série nag di benn compétition boo xam ne ren ji lañ koy soog a tàmbali voilà moo aju ci daanaka mbirum pré-saison nga xamante ni yi ci football mooy équipe yi nekk ci English Premier League bi su ko defee ñu mën ci jouer benn tournoi bu njëkk moom ren ko lu muy màndargaal amaana Chelsea dafa war a dellu si li nga xamante ni mooy daaw saison bu bon la def ba tax qualifié ren ci benn compétition foofu la ci Europe kon ren ci Angleterre la des waaye daal li nga xam ne loolu la jot a wane ci li nga xamante ni mooy euh, première ligue suma série bile mën na dégg nga maam nekk loo xamante ni mën na dalal xelu yenn supporters yi tey jii la ñu joué match bu mujj seen digganteeg Flamme daal di door 2-0 Thiago Silva ak ki nga xamante ne mooy Nkunku ñoo marqué but yooyu la Nicolas Jackson nag dal dina dugg moom it ci li nga xamante ni mooy second mi-temps bi voilà comme ni ngeen ko gisee noonu bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gagné première édition soma série foofu la ci Chelsea football club gannaaw loolu euh, jëm Chelsea googu dañoo dal di am déggoo seen digganteeg AS Monaco ci transfert ki nga xamante ni mooy Axel Disasi Axel Disasi défenseur bu AS Monaco la voilà nee nañu Chelsea dina fay lu toll ci 45 millions d'euros ngir signé ko déggoo nee nañu am na ci diggante boobule ki nga xamante ni mooy Pape Ndiaga Yade moom itam tey jii buteur la ci li nga match boobu nga xam ne ñoom euh, euh, dañ ko amale foofu la ci Quevilly moom ak Pape Ousmane Sakho xam nga ñoo bokk club bu ñu nekk jamono bi ndax Metz ñoo ko amale moom Pape Ndiaga Yade léegi nag tey jii dafa marqué ci jongante googu la muy match amical ngir waajal li nga xamante ni mooy saison bi voilà kon but la dugal ci euh, fa ñëwee ak léegi daanaka ci ay fan képp lay toll voilà ñoom sax de war nañu jouer seen match bu njëkk ci samedi bii di ñëw ñoom waa Quevilly ci Ligue 2 bi dinañ jouer seen match bu njëkk ci samedi bii ñu dëkkmal tombeek la waaye Quevilly googu nga xamante jamono bii fa la Pape Ousmane Sakho ak Pape Ndiaga Yade di footballé kayit xibaar bi mu ngi biral ne amaana dinañu dalal beneen sénégalais muy kii di Soumanou Samb voilà moom nag jamono bi euh, mu ngi euh, voilà ca France googule moom nag jamono bi ca Lorient la nekk Lorient nag daaw dañ ko appelé woon ca Ligue 2 ba ci club bi dem foofu nga xam ne mooy ci Kewele Rouen euh, métropole nga xamante ni jamono bi am na ñaari mbokk sénégalais yu fa nekk moom attaquant bi nga xam ne ñaar fukki ak ñaar képp la am voilà jamono bi ñu ngi koy séentu foofule kon mu nekk beneen renfort pour ñii di waa Kewele ba tey bu jógee ci loolu dinañ wax ci transfert ak ki nga xamante ni mooy euh, Abdou Diallo moom nag jamono bi dañuy séentu mu dem fale ca Qatar Qatar gi nga xamante ni sax day moom rakkam fale signé fan yi muy Ibrahima Diallo bi nekkoon ci Southampton waxoon nañu leen ko fi fan yële ci ginnaaw moom gannaaw bi mu signé foofu nga xamante ni mooy ci Qatar ci club bi ñuy wax Al Duhail Abdou Diallo ñu ngi koy surtout foofu la moom itam gannaaw bi nga xamante ni club bu mel ni Napoli ak Real Betis yëpp bëgg nañu ko waaye bu fi ñu waxee ñu gis transfert boobu sotteegul te ñii di Paris Saint-Germain ñoom tam mel ni soxlawuñu ko ndax moom boolewuñ ko sax ci li nga xamante ni mooy match yi nga xam ne ñoo ngi koy amal voilà donte na mu ca Japon waaye ca joueur ya ñu ber la bokk moom ak ñoom Mbappé ak yi aju ñu ngi leen ber xamaan na dañuy euh, dem Abdoulaye Gallup ñu ne fa lay dem waaye daal li ñu gën a séntu mooy euh, jege na daal ngir dem foofu ca Qatar amaana bu fekkee am na leneen lu ci gën a leer dinañ ci dellu si waat ba tey nee nañu suba a a ñoo ko koy jox ndax li ñu tuddee loyalty bonus la voilà ci accord yi ñu amoon la yoo ne daal bu fekkente ne xëy na la 31 31 juillet bi fekk na ko fa maanaam bu fekkee ab transfert xewut daaw bi muy prolongé contrat dafa bokkoon ci yiñ tënk at bi fekkaat ko fa te dañ ko jox quarante yoo xamante ne neexal lay doon pour wane ne moom daal voilà euh, am na kóllëre loolu nag mooy li nga xamante ne moo jot waxtu bi jot na mu war a jot moom dana ko jot def ci poosam su ko defee ñuy soog a xool la ca des ndax dina dem wala day continuer des foofu di fayee ko xaalis ak Paris saint donte ne football la wuñu ko waaye xaalis moom day ñëw par force ndax ñu tënkoon xaatim ko ciw kayit Karim boobu nga xamanteni moy al ittihad ñom sax dañoo gagné mom kër Benzema mo leen may victoire wala ci jogante gogul lol nak moko may jamono bi ci ñaari match yi mu jouer mu dal di ci am 2 bi ak ben pass décisif suñu gayndee basket yi muy jigéen ñi tay ji dañoo amaat defet comme ni koy dembu buñ leen Uganda doré tay ji Mali mo leen dor wala victoire bu xawa 10 sax la jël Mali dal di dóor 72 49 mu nekk nak match bu doyon war ci suñu gayndee danañ dal match bu bone ni sax gëj nañu ko am légui léegi nag ñoom toogaguñu de 3e lañu nekk ci sen pool 3e lañu nekk fi mu ne nii nag faw ñu jaar ci barrage pour war a mën a dégg maam dundee yaakaar ndax dinañu qualifié quart de finale am déet voilà ni ñuy séntu ne daal dinañ joué beneen match boo xam ne barrage lay doon bu ñu gagné jogante googu ñu xool ndax dinañu qualifié am déet bu ñu ko ñàkkee nag moom waxuñu ko dañuy ñibbisi loolu mooy li nga xam ne dafa leer kon benn sànni tàccu lañ dese ñoom suñu gaynde